internet euh, bu Actubuzz salaam di jàmm waaleykum jëm ci ko xam yaa ngi safoo suñu émission bi nga xam ni ñaala nag mooy euh, mu nekk émission a mag boo xam ne fi nga xam ne moo ci Actubuzz TV fii nag la xam ne mooy euh, Serigne Modou Touré borom léppay leer mooy Serigne bi wax ci diggante combat Ama Baldé ak naan am na ñu naan amul combat bi nag mujjul am mu nekk ñu ñu reporté bi te def naa ne fii nag lépp leeree tey dinañ waxtaan ak moom lu bëree bëri waxtaan ak moom aussi ci li nga xam ne moom mi koy def ci wàllum seet ak ci wàllum faj lépp yëpp laata lu ñu bàyyi ko mu nuyoo ñi nga xam ne ñu ngi si à yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam di ñaan yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala saxal ci réew mi jàmm te dolli ñu tawfiix ak sutura musaluñ ci fitna ak xay ak ko loraange di ñaanal yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala way laago yi nga xam ne si seeni loxo jotul seeni ginnaaw yàlla sunu borom bi dool leen sutura dolli leen tawfiix ñi nekk ci prison yi nekk ci ay natt yu métti ak i xat-xat yu métti yàlla neen ci yàlla sunu borom bi génne ci jàmm ak salaam di wax wa aleykum salaam wa rahmatullah alors bala may dugg ak yow ci wàllum euh, euh, ci wàllum émission bu baax a baax dafa am lu ma lu ma njëkkee wax léegi-léegi mooy yaay sëriñ bi njëkk génn wax diggante combat amabale ak Modou Lo nga ne combat du mus a am bi nga ko waxee nag bëri na ay polémique yu bëree bari ku ci nekk wax ci lañ nga ko wax ba ki nga xam ni mooy euh, Mara Niass ne combat bi dafay am yow nga génn ne combat bi du du am tey may nga dëgg maanaam wax nga tey li nga xam ni euh, mooy dëgg bi tey lan nga nu mën a jàngatal tey ci loolu. waaw loolu dañ ciy sant sunu borom bi ko wa taala baax ndax ñun lépp lu ñu am rek yàlla la lu ñàkk tamit yàlla la luñ xam tamit yàlla la yàlla rek mooy ki du juum te yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne si lu mu wax rek da koy def te lu mu wax tamit noonu lay amee. xam-xam boobu nag duñ ko sante kenn ku dul yàlla ndaxte luñ gëstu la yàlla sunu borom yàlla sunu borom may ñu ci ak ubbeeku ba mu nekk ci ñun bi ñuy wax euh, diggante Modou ak Ama Baldé gisuñu combat bi fu mu amee néewuñ na du am waaye gisuñu benn yoon fu mu amee loolu lañ wax te biñ koy def nag wax dëgg yàlla amoon nañu xel mu dal amuñ ci woon benn jaaxle ak benn tiitaange ndaxte dañ koo seet ba am ci lu wér a wér a wér a wér wax ndaxte tour naa émission ay yoon yoon ñi di ma ci posé question nangu ma caa wax parce que amaguma ci woon la ma leer waaye ba ma demee ba seet ci nag ba am ci lu ma leer ci laa mën a xuuse daal di ci ginnaaw gi nag sëriñ su ci baree baree bari génn nañ daan ne combat ba dana am man seetaan naa ci ci yenn site internet yi ay sëriñ wax loolu daan ne am na sëriñ boo xam ne si nee na combat bi du am waaye komba bi day am la yàlla sunu borom dogal ci gàllankoor non moom mi ngay wax nag dane moom mooy sël sëriñ bi taxaw daan ma daal di waxoon lii moom moo ne woon day du am keneen koo xam ne si ñas la sant moom tamit daan ne day am léegi nag man sama jëm bopp nag muy sëriñ bi nga tudd léegi nii bëgguma di def émission di tudd koo xam ne si nekku fi te man sama jëm bopp dafa am yoon woo xam ne sii moom laa dëdmal ndax man damaa xam li ma yor mooy lan te jàng naa ba xam te it damaa dañ ci agrir maa ngi koy sant yàlla sunu borom par rapport ak yeneen yi nga xam ne si maa ngi gis doxalin yoo xam ne si doy na waar waaye euh, euh, sama maandu may ma may tudd waaye maa ngi koy lancé défi moom moomu bu fekkee ne xam lam doon wax da koo teg ci xam bu wér combat bi nga xam ne si mooy Balla ak Boy Niang muy combat bi ngeen di xaar yaakaar naa le premier janvier dëgg la nag nit ki bu fekkee ne dañ lay soxla ci ay lépp lu ñu lay laaj rek war nga ci am xam-xam bu wér moo tax lañ lay laaj faaw nga gëstu ko ba am ci xam-xam bu wér a wér waaye man làmb dawuma ko siifur léegi ginnaaw moom nee na woon moo waxoon ci combat Modou Lo ak Ama Baldé du am combat bii nga xam ne si moom la ñëpp di xaar le premier janvier maa ngi ko ciy lancé def yi na def émission seet direct daan ne bi bu ñëwee nii ak nii lay demee man tamit ma def émission seet direct daan bu ñëwee nii ak nii lay demee ci la yàlla sunu borom boobaa danañ xam ne xam-xam bi ci kan la de man bëgguma sëriñ boo xam ne sii da ngay gis kii wax na benn réalité wax na maanaam wax na wax joo xam da koo teg ci xam-xam bu wér ñu dem ba la mu waxoon jot ñu teg ci suñ bët nga gaaw profité tourné ci émission wax ko kon naka kee waxee woon loolu xam-xam déedéet nit ki li la yàlla sunu borom may da nga koy jël nga doyloo ko la yàlla sunu borom may kee nga bàyyee ko loo mën nga ne man nga loo mënul nga ne mënuma man lii laa jàpp ne mooy xam-xam moom euh, dafa défier ki nga xam ne mooy euh, Mara Niass loolu nag defe naa ne Mara Niass mi ñuy déglu te xam naa après moom dinañu dinañu ñu woo euh, luñ na Actubuzz TV dañ fi nekkee mooy leeral rek lañ fi lañ fi nekkee alors ñu dugg ci wàllum ci wàllum wàllum seet est que seet nekk na lu est-ce seet nekk na lu wér. seet nekk na lu wér a wér a wér a wér nekk na lu wér xam nga ñun man li ma jàpp man mooy Sénégal ñu ëpp ci ñun dañoo desee jàng dëgg-dëgg jàng ba maîtriser sunu diine. mais seet dafa sax ci islam tey jii dangay gis koo xam si day dem hôpital ñu defal ko analyse luñ ko wax ci yaramam du koy gëm mais lan moo tax alxuraan lim ko wax ci yaramam du ko gëm man bu may seet ci alxuraan lay seetee bañ naa ko ba téere bi ma yor livre bi ma yor moo nekk nii man livre bii lu ma bëgg xam ci laa koy xam. lii nga seetee livre bii nii ci laay seetee. couverture bi nag dama ko dagg na xam nga rek damay bañ a wëy yi di ko jël daal. <laughs> ma loolu. <laughs> damay bañ wëy yi di ko jël. gis nga seet gi nii jëlal seet gi zoom ko bu baax ba mu leer. baax ilmo mooy bii nii ñi jàng arab mën nañ koo liir maanaam gis nga seet gii nii. du ma waxee sama bakkan néew bi tëdd ci biir suuf sax boo bëggee xam nu mu tëddee boo ko seetee nañ la woon ay mbiram. moom seet gi nii. loolu kéemaan na de. xam nga nekkul lu ma toog rek di wax damaa génne livre bi ngeen jël ko normal mu leer nañ ñi jàng ma nañ koo liir gis nga parfois da ngay gis koo xam ne sii sax yàlla sunu borom da koy dénk xam-xam bu bu bu gàtt gàtt mu taxaw fële naan day day dajji ñaan ci alquran mais man may laaj sénégalais yi il faut que ñu ràññee njabar ak ñaan ci alquran ba xam ko njabar ak ñaan ci alquran ñoom ñaar sax bokkuñu aw yoon wuñ jaar mooy différence ñaan ci yàlla sunu borom ci alquran mi ngi tàmbalee bisimilah ngay tàmbalee yow mi ñaanal ci nit ki ci alquran bisimilah nañ ma wax kan mooy njabar di tàmbalee bisimilah ñaan goo mën di gis mu tàmbalee bisimilah du njabar njabar mbirum seytaane la te dara du ci dëgg nekkul wér dafa làmboo ay tuur deret ak di taxaw ci ay kaamile alquran ak tey jii ñu lay laaj sa maanaam sa mën nañ laa laaj sa baaraam mën nañ laa sa baaraamu doom mën nañ laa sacrifier loo sax koo xam ne si yéen a bokk benn benn bàyyi man macha allah xam naa instant bi gars yi ñu ngi may nga baal ma ah nga baal ma rek ma joxe numéro téléphone yi parce que instant émission bi mi ngi commencé tàng te tamit xam naa ne ñi toog sama yaay ak sama papa yi ak ñi nga xam ni seen jàng sori soriwul naam numéro bi mi ngi daw si ban écran écran bi waaye tamit ma baaxee leen numéro bi rek numéro ki nga xam ne mooy sëñ Modou Touré euh, mu ngi nekk 77 nga def 325 00 36 wala nga def 76 325 00 36 ñaari numéro yëpp ay numéro am la bokk ci wooye duñ ko jox jot macha mm-hmm. waaw léegi nag euh, njabar xam-xam bu ñuul la xam-xam bu ñuul la mm-hmm. amul lenn ak leer lu ci nekk te bépp doomu aadama boo xam ne si yaa ngi koy def doo am ak mujj gu rafet te la nga xam ne si moom lañ la ci wax boo sóoboo ba ci biir doo ci gis dara mm-hmm. dangay gis sax ña ca nekk di ko dëgëral naan moo gën a gaaw alxuraan amul lu gën a gaaw alxuraan luy gaaw alxuraan moo la gën a gaaw te yàlla sunu borom bi tabaaraka wa moom la ñuy jàppaloo bañ ne ko ba ne bépp tawat goo leen mën di gis wala bépp saafara boo leen mën di gis rek mi ngi ci biir alxuraan tawat goo mën di gis saafara mi ngi ci biir alxuraan léegi nag jullit bi lan moo tax doy loowut alxuraan ba yàkkamti àddinaam di dem ci loo xam ne si moom daanaka am mbugalum ëllëg la koy la koy dikke dëgg la nag sëriñ si bari nañ lool sax lool waaye man sama sama gëm-gëm sëriñ si luñ bari bari doyut waaye képp koo xam ne si yaa ngi tàbbi ci méccam sëriñ li ngay def nang ci seet sa diggante yàlla te bañ ñu bañ a diglu nag ñi naan ñiy woote woo ay sëriñ dañoo war a dem wuti ji métier lii du métier métier la kay médecin bi la muy def da nga ko mën a génne ci métier mais ñaari faj sax dañoo bokkut parce que médecin boo malaatee ba dem ci lalu hôpital bi bu fekkee ne rab moo la dugg ma mën la ko génneel mukk waaye ñenn ñi li tax gëmuñu ko mooy jëfin yi ñenn ñi yenn maanaam yi ko nit ñi di moo tax ñenn ñi mënuñu ko gis nga Pape xam nga lu ma la wax foofu gis nga ñi faatu woon mille 1800 ña ko faatu woon ba tey ji ñu ngi ci biir suuf xam nga lan moo fa tëdd ñoom ak seen jëf lañ fa nekkee bu fekkee ne lu baax la moo leen fay wettali bu fekkee ne lu bon la moo leen fay wettali gis nga képp koo xam ne si yaa ngi yëng ci wàllum sëriñ di nax ay nit jàpp ne maanaam lii ngay lekk rees na yaa ngi nax sa bopp yàlla nee nañu laa te taakuluuna riba bu leen lekk riba mukk te jël alalu nit ki ba noppi wëlbatiku nga boleke ko yow conséquences yi nekk ci loolu sax kenn xamu ko parce que yow benn da ngaa tuumal alxuraan tuumal yàlla parce que da woon ci nit ñi ci yàlla woo leen ci yàlla gëm loo nit ñi ne al xam-xam alquran yàlla suñu borom dénk na ma ko kon tuumal nga yàlla tuumal nga alquran ba noppi nga wëlbati ko ñëw tegaat ci àq ji nga xam ne si moo dox sa diggante ak doomu aadama yi benn dërëm bi gën a néew bi gën a néew laa wax de ñaanuma yàlla lekkal ko ci neen mu ko man sëñ Modou Touré alors dinañ dinañ dinañ ñëw foofu ndax bari na ci sëriñ yu bëree bëri tamit dañuy sekk nit ki liggéey ba pare di bolekeeg yooyu dinañ ci ñëw insha allah rabbi tey ci wàllum ci wàllum kaaraange lan nga nu mën a wax ci wàllum kaaraange waa xam nga kaaraange dañoo toll ci jamono joo xam si ku ko mën a wut na ko wut ndax en général Sénégal ñun ñëpp fi lañ ne ñun Sénégal yëpp ñu ngi Sénégal xam nañ li fi daw élection saa bu jubee rek da ngay gis niti état yi ak nit nguur yi di sacrifier ay bakkan ngir am nguur te yooyu ay korte yu bon la yoo xam ne si waxtu guddi lañ koy sànni kum dal boo nooyee bopp wala amoo kaaraange da ngay faatu léegi nag yow li la mën a musal ci loolu lu jiitu loolu rek dafa am loraange yoo xam ne si dafay dox ci suñu diggante suñu biir ñu jullit ñi muy di liggéey nit ngir du avancé wala ngay liggéey nit ngir mu ñàkk wala ngay liggéey nit ngir kër ga muy mu gën caa dellu ginnaaw wala ngay liggéey nit ngir du mën a amati dara loolu da ngay gis nit koo xam ne si day tukki sax ñu liggéey ko dootu mën a ñëwati wala nga gis koo xam ne si dañ koo xabtal ay mbokkam dootuñ ko mën a gis léegi nag loolu lépp nag li la ci mën a musal mooy kaaraange te kaaraange dafa yaatu ndax yàlla am na ñun bind ñoo xam ne sii ñi ngi dëkk ak ñun te ñun mënuñu leen gis muy jinne yi te ñoom tamit dañu lora dañuy loraati ki nga xam ne sii tamit nag dafa bëgg kaaraange man mën naa koo liggéeyal façon kaaraange bu mu bëgg am na ci boo xam ne si buñ ko ko liggéeyalee képp koo xam ne dem na ci sëriñ sëriñ ba jëmmi sëriñ ba ko nar a liggéey bu yëkkatee xalima bëgg koo liggéey moom sëriñ ba day loru. loolu ci maanaam ci dee wala. ko nar a yéene moom mooy këpp ci kawam. am na ci boo xam ne si képp ko boo ko jëfandikoo képp ko la bëgg a liggéey day faatu ala kulli xaali na ngay ci bàmmeeram baaxul de ah kay xam tax yow loroo kee de yow sa bopp nga aar moom moo lor boppam moo la bëggoon a lor lor rek bu fekkee yow nit ki da nga bëgg aar sa sa bopp ba yow kala bu kala bu kala ka nga xam ne moo la bëggoon yàq far far far dee loolu moom dana dana xaw doo doy waat sëñ bi yow yoon digalu la na nit bu yoroon fetal bëgg laa rey boo ko njëkk boo ko njëkkee jeeku rey ko ki la bëgg a rey ah léegi nag ñoom ñaar lan mooy différence bi Hmm? luy différence bi yónnee wala nit bu ñëwee ci yow bu la bëggee rey boo ko ma mënee rey rey ko. woowee légitime défense. yow nag kii reyoo ko moom moo rey boppam mi ngi mel ni ku xóoyal posan bëggoon la koo jox naan ko kooku yow reyoo ko yow di foo ko dara yow da ngaa aar sa bopp ba moom du la mën a lor léegi kaaraange googu man képp ku ma koy liggéeyal dama lay wax façon kaaraange yi ma yor am na ci boo xam ne si jinne du la mën a lor mukk am na ñoo xam si tey jii dañuy yor benn galañ boo xam ne ab socc lay doon buñ ko soccoo nii buñ jàkkaarloog yow loo mën di yor buñ la ko laajee da lañ koy jox. kon léegi ku nga yor moom dama dama lay ma lay moytu. am na kaaraange lu ci mën a musal. Ah, am na du du mën ci yow dara dara la dul mën ci yow. mu ngi fii ba ci nit bu jugoon bëgg laa nopp nii sax maanaam day dëgër ndax dafa am ay waxtu yu mu lay dàkk door laa man a jàpp te waxtu yooyu nag moom duñ ko wax moom ndax wax dëgg yàlla xam-xam la yoo xam ne si noob moom dafa xaw doy waar lool ndax bëri na ñu koy sàkk ñoo xam ne si noob day fekk ko a a <laughs> noot bu leen noot yi de man moom noob moom képp ku ma koy liggéeyal day fekk ma waxtaan ak yow ci ay conditions boo ma waxee lu du dëgg noob gi du jàpp mukk man noob yi may liggéey noonu la mel. nit ki dafa ñëw ci yow ne la damaa bëgg a noot kenn yow xamoo bëgg na ko bëgg bëgg ko mu fay la xaalis est-ce pour moom li ko dugal ci xale bu jigéen wala ku góor ku jigéen li ko dugal ci góor ki mooy xaalis est-ce que di nga ko defal. wax lu dul dëgg ab jullit ko war di ko woy bëri na ñoo xam si dañ leen di woowee sëriñ buñ toogee ci émission ni ñu tàmbalee bi ni ñu noppee la ñuy wax dara du ci doon dëgg yow mi koy seetaan da koy xam yow mi nga xam ne si ab sa dëgg-dëgg sëriñ nga di ko seetaan mujj gi da ngay rus ndax da ngay xam ne yow sa der mi ngi yàqu à cause de kii ci toog di wax noob man képp koo xam ne si maa ngi la koy liggéeyal billaahi wallaahi wa taalaahi soo ma fenee nopp gi du jàpp te man dama lay laaj ba xam da koo bëgg soxna am déet boo ne maa waaw ma liggéey boo ne maa déet ma bàyyi te ci kaw condition sax bu fekkee ne bëggante ngeen yéen ñaar man dinaa la jàppale nga daan ne ma yaayam moo bañ wala baayam te yéen ñaar ngeen bëggante dama la ciy jàppale am nga alxuraan la wax waxtasimu bi abdillahi jamian wala tafarraqu man taman ci aaye boobu noonu lay liggéeyee nopp ba ku nopp bi tey jii ku mën di bañ ci mokki ndaw si buñ ci jëflantee man ak yow yàlla yàlla xam na nga am la nga bëgg macha allah loolu lu am na solo ñu wax ci wàllum uh, ngelawal setaane tey bari na ñu bëri tey ñi ngi dox seen biir di metti wala bu duñ duñ lu jëlanti mu soto yooyu noonu wàllum ngelawal seytaane lan ngañ ci mën a wax waaw xam nga ngelawal seytaane fan yi yàlla am na benn émission bu ñu ci doon def yaatal nañ ci lool waaye lañ ci liñ ci xam dëgg-dëgg lépp lépp mënuñ ko wax ci benn émission waaye ngelawal seytaane lu danger la lu doy waar la te dafa bari lool man bari na ay nit ñu bu ma doon seetaan bu ma doon seetal tey jii lu mat cent personnes mën naa ne 80 personnes yi dañuy am ngelawal seytaane ndax ngelawal seytaane anam bi mu duggee doomu aadama bi dafa yomb boo amul kaaraange benn dinaa maye benn kaaraange boo xam ne si ku ko takk yàlla suñu borom dana la musal ci lu bari. macha allah déglu leen baax. boo ko mënta bind demal nga xool jàngkatu alquran ba bindkatu alquran ba nga neexal ko mu bindal la ko da ngay bind bismillahi rahmaani rahim 114. bismillahi rahmaani rahim 114 nga takk ko téere ndigg ndomba mu doon benn gaaw lu jugewul ci yàlla du man ci yow dara ndax dégg nga wax ji. bisimilahi rahmaani rahim 114 fois. 114 fois te ndomb gi bu nekkee ci yow doom joo am yàlla sunu borom da la koy sàmmaaleel. ay ndomb gi dafay aar aarale sa sa doom. dafay aar aarale sa njaboot. te loolu yow man a 114 rek bisimilahi rahmaani rahim 114 boo jëndoon benn papier blanc du fees kayit gi nga neexal ki la koy bindal nga awu ko kenn du mënati ci yow dara dara mukk loolu moom maa ngi koy neexal man ngi ko maa ngi ko joxe képp ku ko bëgg mën nga koo def te da ngay gis addiya la waaw li nga xam ni mooy wàllum wàllum këyit wàllum papier sonal na ñi nga xam ne mooy ñi nekk ci bitu bitim réew am ñoo xam ne liggéey nañ am teraanga gu gu baree bari am ñoo xam ne ñu ngi foofu nekk fa di liggéey ba bëri amul këyit wàllum papier papier est-ce que est euh, euh, euh, ay nga ci baax a baax waaw yàlla rek moo ay ci lépp nag dafa garaaw de maanaam man ni may liggéey damaa jiital sama lépp yàlla ndax man yàlla lay ñaan nekkul man maay tibb di maye waaye képp koo xam ne si man maa ngi lay ñaanal nga doyloo ma te nga gëm la ma la jox te muy dëgg ci yow ñu jiital ci yàlla diir bu gàtt da nga am la nga bëgg. ci wàllum papier ci wàllum papier. est-ce numéro yi est-ce que numéro yi ma joxe yi mu am na WhatsApp. numéro yëpp am WhatsApp. muy 77 bi 325 00 36 wala 76 325 00 36 ñaari numéro am na WhatsApp. képp aajo bu doomu aadama bi mën di am. woo ma téléphone ci kaw ñu waxtaan ma nag moom ba déggoo waaye ci biir waxtaan boobu mu gëm ne man ci yàlla laay ñaan ndax man du ma ñaan ci na lu dul alquran te alquran mbiru yàlla sunu borom la alquran amul kum dul jariñ amul lu mu mënta saafara yàlla moo ko wax di fii sifaa'un linnaas moom la yàlla sunu borom wa léegi day jii bu fekkee ne nit da koo jëfandikoo daan na ma moom mooy xool boppam parce que nit ki nga xam ne si dafa am sobe wala ki dëkk ci caaxaan wala nit koo xam dafa dëkk ci wax lu du dëgg kooku alxuraan mën koo jëriñ mukk mukk yow mi nga xam ne si yaa ngi ma nar a woo bu fekkee ne lii ma wax dafa nekk ci yow wala nga dëkk ci di ko def jërul nga may woo parce que bu ma la ñaanal doo ci gis dara ndax alxuraan ak sobe ànd yi te téere yi ma lay liggéeyal tamit lenn moo ko mën a toj muy nga juum takk ko ba noppi di seq ak sa soxna loolu dong moo ko mën a toj. lu dul loolu mënu koo toj nga takk téere ba noppi di sëy ak sa soxna loolu kese moo ko mën a toj mais mais mais amul am amul ay téere yoo xam ne nga ko takk pare def li nga li nga bëgg nga bëgg a def loolu amul am na yooyu xam-xam bu ñuul la tey ay caaxaan la rek ay karaamatul xay ni la yoo xam ne si tey jii da ngay gis nit koo xam danaa la mën naa laa wàcceel fay ma lan 7 millions ma wàcceel la 40 millions mais ki lay wàcceel 40 millions nga fay ko 7 millions yow boo dee nit est-ce que war ngaa gëm loolu ñu taaj benn wëris boo xam dañuy gëlëmal sa bët nga gis wëris bi fees dell ak xaalis boo dugalee sa loxo doo fekk dara loolu amul njariñ ki naan la fay ma set ma jox la quarante utiliser sama xel loolu lépp neen la dara gëwuma ci dara dara man képp koo xam ne si yor nga xam-xam bu ñuul ci gàttal man sañ Modou Touré nee naa la nga yor du dëgg bu dee xam-xam bu ñuul ba nga yor mën nga cee rey man nga cee defar bismillah maa ngi nii alquran mooy li wér te moom lañu yàlla sunu borom jàppaloo képp ku jàpp lu dul ci alquran da nga ko réccu man de bépp sëriñ bu ma gis ma ne ci alquran lay ñaan dama koy def nawle dama koy fonk bu faw te dama koy bëgg sopp ko waaye koo xam ne si dangay nekk fii di ay xaawa ki béjj nag yu kenn xamut doy na waar daal da ngay waaru daal macha allah boobu la ñu ngi toog téléphone yaa ngi yaa ngi sonné téléphone yaa ngi yaa ngi la <laughs> macha allah émission bi aussi je pense que am na laalum euh, ma tëjee ko wàllum xarwatu lan mooy xarwatu. kooku xaaral ma def ruwaat daa mel ni bii daa moom daa am solo solo lool sax. xam nga xalwatu dama ko mas a wax ci benn émission ibaadu yi muy wahabisme yi ñi saqal seen karaw yi te jàkkat seen dubé yi di ma dajj ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu am rek xalwatu moo ko may moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy woote. bi mu duggee ci ma ba génn ci la ko pouvoir buy xalwatu moo gën a gaaw luy gaaw moom xalwatu lépp looy wut te bëgg cee gaaw a jot te boo ca jotee du la rëcc ba faw islaam islaam kañ la woon du yonent bi ndax boobu ba léegi fay na xalwatu loo ciy sàkku ba am ko maanaam doo ko perte mukk mukk xam nga lan mooy problème bi ki koy duggal ndax mën na ko wala mën ko ndax kii ko ragal yàlla wala nekk na ko ragalut yàlla yii ngay détails yi ngay tudd ay kaaraangeeg noob ak yooyu yëpp nag moom daanaka du mbiri dara xalwatu moo leen gën a seeri mbir te xalwatu ëmbaale na lépp xalwatu daf lay ëmb ëmb sa njaboot ëmb say soxna ba ci say sët da lay ëmbal ëmbal ak alal boo ci bëggoon boo ci façon tey jii alal gu dul jeex ay kër yu bari ndakaaru ay oto ak ay alal ju jeex loolu lépp boo ko ci fasee te muy dëgg ci yàlla sunu borom may ko ko waaye jumtuwaayam nag dafa xaw a métti ci ñee métti na méttiwut ay fereem métti na méttiwut ci ki mënul mën naa metti ci moom waaye ci kiy tëdd lu dul jeex mën naa yomb ci moom ndax xalwatu moom 500000 mënu ko 1 million mënu ko te bu fekkee ne koo xam si bu xëyee suba pour mu am junni da koy të kooku métti na ci moom moo tax dëgg na méttiwut nit ñi bëgg nañ mais dañoo amut waaye xalwatu moom képp koo xam ne si duggal nañ la ko te gisoo ko boo amee fu la demal ci sëriñ bi mu delloo la sa alal xalwatu kuñ ko dugal boo ko gisut demal ci sëriñ ma nga pelante ko mu delloo la sa àllam man nag sama wax jii nii soxlawuma ci ku ma gëm ak ku ma gëm mais l'essentiel que xam-xam bi nekk ci mën naa ko wax yàlla sunu borom gis nga ba muy woote bi muy door a woot dana yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi ba mu demee ba am ñu ko gëm dafa sensé discours yaa ayyuhal lazina aamanu ee yéen ñi ma gëm kon xam nga ne yàlla am na sóoraale na am na ñu ko gëmut ndax dégg nga wax ji bi muy door a woote yaa ayyuhan naas ay yéen nit ñi dafa généraliser bi mu demee ba am ñu wuyu mu ne yaa ayyuhal lazina aamanu ay yéen ñi ma gëm kon nag man sama wax ji dama koy dëkkale foofu suuraale ma ñi ma gëm ak ñi ma gëmul ki nga xam ne si mam dégg na xam-xam bi may wax mu intéressé ko man kooku laay waxal des fois da ngay gis koo xam ne si dañ naan euh, sëriñ léegi moom daa xaw a neex ku ci dugg léegi da ngay am alal moo tax moom koo gis rek mu tëb dugg ca ak njabar nangam ak nangam waaye kooku soxor na de yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla sunu borom waxee mu mu fësal wooteem bi ndax bu toogoon këram nit ñi danañ ko wuy si yow laa posé question bi dafa génn dem ci biir nit ñi nit ñi door koo mën a wuy si ah mu ngi noonu léegi yow yow sa jëmm bopp nga gëm ne yàlla sunu borom bind na nit bind na jinne nga gëm ne jinne day lor doomu aadama léegi ana ban ban ban saafara moo mën a moo mën a faj loolu ban anam nga mën a fexe ba jinne ji nga xam ne si dugg na paap mii nii nga fexe ba jox ko saafara soos mu taqali ko jinne ji nga xam ne si moom moo koy lor ndax loolu nekk na ci hôpital yi hmm? ki yore ay rab di kat di kat di yuuxoo ko daanu ndax la koy faj nekk na ci lalu hôpital yi nañ bàyyi soxor gi ki am xam-xamu alquran génn di ko fësal nañ ko dooleel jàppale ko te xam ne kii lañ doon wër mooy ki nga xam ne dafa maîtriser alquran jàng xam-xamu alquran ba am ko ñëw di ko fajee ndax dafa wuy ji aaya muy maa farat naa fil kitaabi min shay'in ak fii sifaa un linnaas man boo xool daanaka sama émission yëpp ñaari ay yi dama ko ci fësal bu baax a baax bëgg ñi nga xam ne si ñi ñi ngi leen di defal lavage cerveau ci ñaan seen xel mën a dellu si waat tey jii des fa nit dafa lay génneloo sarax mën na laa tuurloo deret ñu daan loolu njabar la nit nekku ne saraxu deret yëpp njabar la de dafa am yoo xam ne dafa làmboog deret muy ki nga xam ne ay jinne maanaam sadd na ko ba man ko ba attan naa lépp aw fanam kooku laaj na nga tuura ko deret yeneen yàlla Moussa waa bani Israël dañoo mosoon ñëw ci moom daan ko dañoo bëggoon a xam sunu buur bi kan moo ko rey mu ne leen da ngeen di jënd aw nag ndax dégg nga wax ji ñu ne ko nag wu mel nan moom la alquran di nettali ci sooratul baqara naan laa faaridun wala bikunun xawaanun bayna saalik fafaalu maa tumaruna mais bi ñëwee daan ko dañ koo bëgg xam kan moo ko rey Moussa na leen jënd leen nag ñoom dañoo ci gàttal dañoo wax Moussa mii ab dof la ñun ñu koy wax dañoo bëgg a xam suñu mbokk mu ñu rey mu ñu reyloo aw nag Moussa lan la tontu. qaalu ausu billahi an akuna min al jaahilina yàlla na ma yàlla sunu borom musal ci ma doon ab jaahil nit ku xamul dara daal biñ demee ba nga xam ne si ne seen xel dellu si nag ki mag ci ñoom daana ginnaaw ab yërante yàlla nee na nañ dem laaj ko nagu mel nan ci lañ ko ci lañ ko laaji nagu mel mu leen laa faarin wala bikkulun xawaanun bayna saalik fafaalu maa tumaruna mais li ma bëgg a wax foofu saraxu nag bi mu leen génneloo biñ demee ba am nag wi leen Moussa wax bañ ko indee biñ ko reyee ba fees ko Moussa dafa jël génnu nag gi bi mu ko dóoree néew bi néew bi dafa jug daan ne diw doomi diw moo ma rey version yi nag bari na ñii dañ ne maanaam dañoo jël ca nag wa ci yàpp wu dóor ko ca bàmmeel bu mu jug waaye version bi nga xam si moom moo gën a wér mooy dafa jël geenu nag gi dóor ko néew bi néew bi jug daane diw diw moom a rey léegi Moussa ab yonent yàlla wala du yonent yàlla kooku yàllaa ko yónni lan moo tax waxu néew bi kan moo la rey rek wax wax ko dafa indi dafa indi sabab yonent yàlla ayuba alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla sunu borom tegee tawat gi ba yaram bi nëb ba saxe ba waa dëkk bi génnee ko mais tawar googu tey jii bu daloon kenn ci sunu sëriñ si lan la ñuy wax dafa àl ko dafa torox lam doon woote dara du ci dëgg te ab yenent yàlla ki ko gën a foor la yàlla teg natt boobu yaram wu nëb ba saxee ñu sànni ko ca sën ba ah nga xam ne nawe boo taxawee ci nopp bi di gis maanaam la nekk fële léegi yàlla sunu borom bi mu koy saafaraal tawar gi nan la def na nekk urkut bi rijilika haasa muxtasilun baaridun wasaraabun ah ndax dana ko gëddal suuf si boo gëddee suuf si am ndox dana ci ball nga jël ko naan ci man nga raay ci sa yaram tawat gi tàqale ko yow léegi lan moo tax yàlla jikko jekk rek teggi tawat gi képp koo xam ne si yaa ngi dàq ñaan damay gëm ne gëmoo wax yàlla parce que yaa ngi jàngee histoire yénant yi mu leer naññ ci yow clairement dëgg la boo ñëwee di dàq njabar mën naa ci ànd ak yow ndax njabar moom képp ku koy def yénant bi ne dañ laa war a fekk fa nga nekk sax ñu rey la te ab julli du ko def mukk kon yooyee nañ ko bàyyi ñaan dafa sax ci alquran xal watu nag moom luy gaaw rek moom moo la gën a gaaw ñu tënk ko daal ci gàttal. waaw waxtaan bi am na solo lool oh, am naa tey su ma sañoon émission bi dafay dem di continuer ndax bëri na lu bëree loo xam ni bëggoon nañ euh, mu leer nañ je pense que ne tey euh, ñu bëggoon li solo leeral nga ko waaye li nga li am solo mooy tënk gi nga xam tënkal nga ñu ko ay waxtaan yoo xam ne tamit ah <laughs> dafa mel benn kilifa bu mooy loolu macha allah tey ban kàddu ngay ngay tënk ak lan ngay wax Sénégal yi ak lan ngay wax àdduna nga bàyyi la nga daal di tàggu tàggu toog mbokki internet bi ak Actubuzz TV Sénégal nag moom dëgg la jamono ji moom ñu ëpp ci ñoom xaalis lañuy jaam waaye jaamatuñu yàlla waaye li leen di yombalal xaalis yàlla indi na ko ci alxuraan sunu kilifa di sunu wasila muy Seyxina Ahmadou bàmba am na téere bu mu bind bu tudd Majmahun Nurayni ki nga xam ne sii dafay sàkk wërsëg te bëgg alal yomb ko yàlla sunu borom di ko wërsëgal ndax wërsëg dafa yaatu wér-gi-yaram rek wërsëg la nekk ci jàmm wërsëg la te jàmm lu jafe la ndax da ngay gis ne ki ñàkk sax moo gën a nekk ci jàmm léegi ñu am si danga ko am ak dégg ba looy ñu dem yomb dañ lay jël rahmaan am bismillahi rahmaan boobu waaye nag bala nga koo bind dañ koy xaaj yàlla may ko dikkati ndax ay nit ñu baax lañ ndax baax weesu moom ak bës baax sama xarit sori wax dëgg yàlla loolu dama koy gis ci internet bu bari nit ñi ko wala waaye dëgg la réew mi toll wax dëgg yàlla ñuy yaatal xam-xam yi moom bi dafa nekk mën tey yàlla kon ku bees képp koo xam si yaa ngi seetaan vidéo bi abonné ci ñoom ngir jot ay xam-xam yu ñu mën di jot nga mën koo jot sama ñaanal leen yàlla ko dara yàlla suñu ko leen ñaanal nag paap li nga ko génn nag ci émission bi am na ndax dafa dafa ragal gaay yi leen ñaanal ko yàlla suñu borom may ko tuddee bu yaatu te yombale ko ay xéewal di wax wa aleykum salaam